Amath Diop dalal ak jàmm ci Rewmi FM. Euh, ñu ngi lay delloo nuyu bu baax ñu ngi lay fay bu baax madame Ndiaye. yow sa xam-xam mu ngi waa mu ngi màcc ci wàllum euh, migration ak sukkaliku du développement yow la ñu dénk lépp loo xamante ni ñeel na euh, migrant yi dikkaat fii ci Sénégal seen wàllum réintégration maanaam nu ñuy bokkaatee ci société bi euh, banqaaso fi nga bokk banqaaso ci ministère des affaires étrangères noonu la noonu la noonu la way bëccëg bii la ñuy ñi nga xam ne ñooy migrant yi Euh, foofa la ñuy taxawandi euh, di laaj bi njëkk kan lañ mën a woowee migrant. Euh, jërëjëf comme ni nga ko waxee dañoo jëm ci màggal. Mmh, euh, des migrants donc mu nekk bis boo xam ne dañ koy jagleel suñu compatriotes yi suñu mbokk yi nga xam ne nii. Mm-hmm. voilà benn moment dañoo tànnoon ne ñoom kat euh, dañuy dem euh, bitim réew euh, dañuy dem bitim réew wala bon ñoo xam ne nii mun nañ ne sax ci biir réew mi la nekk mais le plus souvent ñun dañu naan ñi nga xam ne dañoo dem ci ay raisons yoo xam ne raisons yu diverses la mm-hmm. donc ñooñu ñoom la ñuy ñoom la ñuy ñoom la ñuy màggal yeneen réew yi aussi dañ koy dañ ko dañ koy màggal parce que bis la boo xam ne nii Nations Unies moom moo ko moom moo ko décrété gu mm-hmm. ñu wax migrant mun nañ ne mooy ki nga xam ne nii dafa jóge ci su euh, mu sosoo en tout cas dëkkuwaayam bi nga xam ne nii en tout cas fa faral di nekk fa faral di nekk saa su ne mu jóge fa dem ci beneen dëkkuwaay amaana dëkkuwaay bi nekk ci biir euh, réew mi mu nekk su boobaa dañuy wax migration mais migration interne la ñuy wax ci biir réew mi am na ñoo xam ne aussi dañu jóge seen réew dem ci yeneen réew te buñ ko waxee da ngay passé lu ñuy wax frontière donc digaloo ñaari réew. boo paasee digaloo ñaari réew yooyu mën nañu yaa ngi ci beneen réew mm-hmm. kooku dañuy wax ne moom mooy euh, euh, migrant bi nga xam ne ni euh, voilà international donc moom dafa tukki ci beneen réew donc migrant international donc bu fekkee ne dañuy dajale tuuti dañ naan migrant bi nga xam ne nii migrant interne la nga xam ne dafa jóge dëkkuwaay habituel am dem ci beneen dëkkuwaay boo xam ne may génnul réew mi wala ki nga xam ne dafa jóge dëkk waaye habité am dem ci beneen réew hmm. donc daal mën nañ ko tuddee migrant mu mel ni nag bëccëg bu am solo la ci kilifa yi lan ngeen ci nësër waaw bëccëg bu ama ama am solo la ci état du Sénégal donc le gouvernement du Sénégal mais day am solo ñu dellusiwaat ci sababu euh, li nga xam ne ni mooy euh, bis bu màgg bi mooy journée internationale des migrants nga xam ne ni Nations Unies euh, nga xam ne réew yoo xam ne réew yu bari yoo xam ne dañoo booloo ñoom ñoo dénk en tout cas seen kaddu euh, lu ñu wax euh, organisation donc des Nations Unies euh, donc 18 décembre bu nekk dañuy fêter les migrants donc mu nekk loo xam ne lu am solo la ci biir loolu ren am na benn thématique boo xam ne ni au niveau international moom la ñu jël mooy act today donc agir aujourd'hui donc agir aujourd'hui donc il faut que ñu am ñu taxawee pour que en tout cas lépp li nga xam day tourner ci phénomène boobu ñu xool nan lañ koy mën a nan lañ koy mën a jànkoonteel mu nekk lu am solo ren nag le ministère des affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur nga xam ne euh, voilà lu jëm ci wàllu gouvernance de la migration gestion de la migration ak yeneen mission dañ ko dañ ko dénk bu ñuy wax gouvernance de la migration aussi nekkul ne ministère boobu kese moo ci nekk am na yeneen institution yoo xam ne ñoo nekk ci biir Sénégal yeneen ministère yeneen structure yoo xam ne lii ñu ngi ci nekk mais ren comme ni nga ko daan defee at mu jot Rennes, euh, le ministère, à travers la direction générale, en rapport avec euh, le ministère en charge des Sénégalais de l'extérieur, donc et son cabinet, dañu ne dañuy euh, voilà fêter que les travailleurs migrants loolu lu am solo la thème bi ñu tànn ren mooy alternative pour freiner les départs en migration irrégulière et synergie pour un accompagnement plus efficace à l'insertion et à la réinsertion réintégration donc mu ne dañuy fexe indi loo xam ne Euh, mën a joyanti wala dina mën a euh, ëlbati li nga xam ne nii moo fi nekkoon nga xam ne nii gis nañ ne xale yi dañuy dem ñu bari dañuy dem mais ji ma xool naka lañ mën a def ak li nga xam ne dèjà ñu ngi koy def ji ma xalaat ak li nga xam ne dèjà ñu ngi koy def nan lañ mën def ba nga xam ne dem mi ah, en tout cas dina wàññeeku bu baax a baax a baax a a baax baax a surtout dem yi nga xam ne teguwut ci yoon mhm. te ci kaw loolu day am solo ñu dajale ñi nga xam ne ñëpp dañuy yëngatu ci wàll woowu ensemble ñu ji xool nan la ñu mën a liggéey ensemble comme ni ñu ko defee depuis le depuis le début. Mm-hmm. globalement daal loolu bokk na ci li nga xam ne nii ren moom la direction bi voilà du ministère des affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur lëkkaloo. Euh, voilà ci wetu euh, ministère en charge des Sénégal l'extérieur lëkkaloo ak euh, OIM hmm, nga xam ne nii dafa nekk partenaire euh, privilégié stratégique en tout cas comme ni ñu koy waxee ñu mën a accompagner dynamique donc waxtaan boobu daal ren ci loolu la ñu nekk euh, parce que nekk na bis boo xam ne nii bokk na en tout cas bis yi nga xam ne état du Sénégal le gouvernement le ministère des affaires étrangères jox loo ko cër bu màgg a màgg a màgg a ñi nga xam ne ci la ñu nekk ñu jéem a na lañ leen di dundee. yi migré bëri nañ parce que looloo leen soxal mais ci seen réew ya ñu nekk li ñuy faral di ñaxtu bëri na moo xam wàllum question consulaire yi wala yeneen ak yeneen mais du ñàkk ni état day faral di teg ay politique ngir foofa ñu nekk seen nekkin gën faa ñoŋ est-ce que mën nga ci dellusi les politiques de l'état pour que nos compatriotes établis à l'étranger euh, gën a nekk dans de bonnes conditions fa nu nekk. oui euh, xam nga euh, bu ñu ñëw ci en tout cas parce que bon li ñuy wax souvent ñi nga xam dañuy jógee di dem bitim réew dañuy concentré wu souvent ci wala mettre le focus souvent ci Afrique ñi nga xam ne Afrique la ñu jógee di dem di dem bitim réew. y compris ñun suñu bien vrai que bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu demee bitim réew gis nañu ne am na ñoo xam ne ni daanaka ci réew yi ñu nekk mën naa am sax yeneen xeet yi wala yeneen euh, en tout cas couleur yi comme bu fekkee ne mën naa ko tudde noonu ñooy gën a bari souvent africain yi loolu lu ma mën a foofu mooy que am na ñoo xam ne ni euh, bu ñu xaymaa euh, ñuy jóge ci continent yeneen yi di bouger moo ëpp foog ñuy jóge ci continent Afrique di bouger mm-hmm. mais nag bon comme que jafe-jafe yi gis nañ ne tar na en tout cas Afrique te gis nañ ko bu baax lu gën a bari nit ñi dañuy bàyyi xel rek ne africain yi ñoom ñooy tukki mais Euh, en tout cas am stratégie yu am solo yoo xam ne teg na ko aussi bien pour que ñi nga xam ne dañuy dem demin demin wu am solo ñi nga xam ne déjà dañ sa nekk aussi ñu toppatoo leen seen ak ak seen yelleef en tout cas nguur Sénégal gi nga xam ne nii moom moo yeyoo en tout cas téewal leen ko téewal leen ko ba tax na l' état du Sénégal lu mu def à travers le ministère des affaires étrangères de l'extérieur nga xam ne ni en tout euh, yi nga xam ne ni suñu compatriotes yu nekk bitim réew dañ leen faa lu ñuy wax ay ambassade euh, euh, ambassade yi xam ne lépp lu jëm ci affaire coopération entre les ñoom ñoo koy doxal ak des consulats am na sax ay consulats honoraires nga xam ne ni dañu sukkandiku ci voilà ci ak ambassade donc loolu nga xam ne moom la ñu teg en tout cas ci yi nga xam ne ni ay pays xaritu Sénégal lañ mu nekk pays yu bare bare bare bare loolu aussi mën nañ wàccee gàcce ngalamal Sénégal parce que réew yu bare bare bare Sénégal positionné na fa euh, ambassade euh, ay consulat yoo xam ne nii ñoom ñooy taxawu suñu mbokk yi nekk foofu assister leen c' extrêmement important assister leen protéger leen c' extrêmement important parce que loolu seen wàll la ñoom ñoo ko moom donc loolu moo nekk loo xam ne nii moom la def loo xam ne liggéeyu bitim réew bu ñu amee jafe-jafe consulat bi ambassade bi taxaw ci léeg-léeg sax day am ay yoo xam dañu jóge fee appuyer ña nga xam ne dèjà ñoom ñoo xam ne li leen Sénégal ci euh, li nga xam ne aussi mooy bëgg a dem dafa war a am lu ñu war a teg dem bi waxuñ ne bu kenn dem mais kuy dem aussi na dem ci demin wu normal looloo tax état du Sénégal teg benn politique stratégie euh, yoo xam ne ni pour xeex ak demin bi nga xam ne nekkul demin bu jaadu euh, ci loolu ñu teg juróomi ponk yoo xam ne yu am solo la euh, pour xeex ak ñi nga xam ne dañuy dem demin boo xam ne bu doy waar la lu ñuy wax la prévention fàggandiku c'est extrêmement important fàggandiku ak aussi li ñuy wax la gestion des frontières parce que nit ñi bu ñu dem dañuy jéggi frontière jéggi frontière mën nga ko def ci suuf si mën donc yooyu yëpp ci kaw gi aussi ah mais souvent ñun suuf si la ñuy wax ak ndox mi mais yooyu yëpp dafay am solo ñu teg benn euh, stratégie boo xam ne nii ñiy dem dinañ xool nan lañ leen di mën a xoolee ba nga xam ne nii véritablement duñ mën a jékki lu ñuy wax aussi répression lu am solo la parce que nit ki nga xam ne nii li muy def tegu ko ci yoon ay bakkan yu bëri mën na ci rot xaalis yu bëri mën na ci yàqu image Sénégal mën na ci yàqu décrédibiliser li ñu xam ne moom la ñuy def lépp ñooñu aussi dañ leen war a teg ay daan Hmm? dañ leen war a teg ay daan loolu aussi en tout cas bokk na ci stratégie aide ak protection wax naa ko léegi euh, protéger leen aide bu baax ba nga xam ne nii ndimbal euh, ba nga xam ne nii véritablement euh, dinañ mën a fexe ba ñi bëgg a dem te demin wu normal aussi ni ñu appelé nga xam ne dinañ mën a changer xalaat bi ñu amoon. Hmm. li ñuy wax aussi retour ak réinsertion. parce que bu ñu travaillé ci bu ñu liggéey ci bëgg a téye ñi nga xam ne dañuy bëgg nañ demin boo xam ne normalul dafay am solo aussi ñu xool levier bi nga xam ne déjà mu ngi fële parce il faut que ñu jéem a fexe ba nga xam ne ni buñ bëggee ñëw dinañ ñëw ci ñëwin boo xam ne ñëwin wu jaar yoon la ñi nga xam ne tamit bon euh, par extraordinaire dañuy ñëw ci ñëwin boo xam ne dem ba nag peut être ñu leen di wàññeek yooyu il faut que l' euh, leen ba nga xam ne bu ñu ñëwee ñu man leen a euh, jàppale ba nga xam dinañ mën a delluwaat ci seen njaboot duggaat ci biir société bi mën a nekkaat am dignité loolu la ñuy wax assurer la retour et la réinsertion pour assurer loolu mm-hmm. globalement voilà stratégie globale yu ñu teg mais comme ni ma ko waxee léegi institution bu nekk am na ay mission précise spécifique yoo xam na tegal nañ la ko euh, la direction générale euh, moom mi nga xam ne nii moo nekk benn direction moo nekk l'unique direction générale ministère affaires étrangères euh, teg na lu lu ñuy wax ay ay ay BAOS dans le cadre de sa ses missions nga xam ne moom mooy appuyer Euh, les Sénégalais euh, de retour comme ni nga xam ne nii ak les yi nga xam ne ñoo nekk au niveau de la de la de la diaspora particulièrement euh, loolu dafa nekk lu lu am solo donc ñu teg ay bounce au niveau des des des des régions loolu xam naa ne ci biir waxtaan bi. mën nañ cee gën a ñëwaat lu yaatu euh, ci stratégie yi xam mën nañ ko wala boo bëggee aussi mën naa mën naa mën naa mën naa continuer mhm. euh, pour un peu voilà euh, respecter cadrage yu question bi ni ko posé waaw parce que junj nga ko ba was yooyu mat naa waxtaanee ndax ay bànqaas la yoo xam ne dañuy jàppale migrants yi ñu reflet wala ñi ñi ñu delsiwaat ci société bi te xëj na anam ba ñu delsee neexu leen mais est-ce que bànqaas yooyu ngeen teg ñi nga xam ne ñooñ ngeen ko jagleel ñoom xam nañ ko assez tamit ñu ouvert euh, ces bureaux-là. oui euh, en fait dafay am solo effectivement ñu euh, deltuwaat tuuti ginnaaw BAOS yi euh, mooy bureau d' appui d' orientation et de suivi mooy bureau yoo xam ne nii dañuy jàppale di orienté orienté ni ñu koy waxee ci wolof di di di di joyanti di di gindi voilà di gindi mm-hmm. ak aussi di gunge di suivre di gunge donc noonu lañ ko noonu lañ ko mën a tuddee ci ci ci olof donc bureau boobu depuis 1987 tegoon nañ ko nga xam ne ni dafa rattaché au ministère des affaires étrangères nga xam ne ni loolu moo nekkoon ay mission mais euh, li ñu gën di lu am solo la en tout cas ministère bi mënut a yem kese Dakar mais dafa war a am ay bànqaas yoo xam ne ñoo nekk ci région yi ñu commencé par six régions yoo xam ne tegoon nañ fa ay bureau BAOS mais bureau yooyu aussi euh, dañ ko tegande woon euh, am ay partenaires yoo xam ne ñoo ñu ci doon accompagner mais nag bi projet gouvernance migration et développement ñëwee euh, nga xam ne ni projet la boo xam ne ni Union européenne moom moo ko financé woon. Euh, euh, jeex na le 31 le 31 août bi la jeex nga xam ne la direction générale bi mu représenté le ministère des affaires étrangères ak euh, la coopération espagnole ñoom ñoo ko doon co-exécuté ñoo ko doon exécuté ndoo ensemble dañoo teg a travers ce projet la fexe ba région yëpp am BAOS mm-hmm. donc région yëpp am bureau BAOS yoo xam dañ ko logé ci agence régionale de développement ARD ñun suñu partenaire foofu la ñu leen logé donc ñoom BAOS yooyu noonu ñu def fa équipe yu am solo équipe boo xam ne nii am na responsable BAOS am na euh, ay points focaux yoo xam ne nii ñoom ñoo nekk au niveau des départements ba nga xam ne nii dañu def maillage national nga xam ne fépp fu Sénégal nekk bu fekkee ne soxla nga ay information ci ay mission yi nga xam ne moom la ñu dénk BAOS bi soxla nga ay information soxla nga ko la kindi euh, voilà ñu ñu ñu gunge la donc loolu nag dafa nekk loo xam ne lu am solo la euh, ñun xayma ban lañ mën a def ba xam ne nii BAOS bi nit ñi xam nañ ko mooy taux de fréquentation yi nga xam ne day am ci taux de fréquentation yooyu bu ñu xoolee gis ne que taux de fréquentation yi am na solo te effectivement xool nañ ne am na solo parce que am nañ ay retour xam ne ni am nañ ko suñu nekk au niveau central au niveau de la direction générale donc loolu ak partenaires yi nga xam ne nii dañuy travailler autour loolu wane nañ ne effectivement liggéey bi ñu def aussi euh, am na solo ba tax na hmm, te am na wet goo xam ne tamit lu am solo la ci français bi peut-être euh, question bi kii wutoon bañ mën cee bañ mën cee àgg. Mhm. Euh, mission yi nga xam ne ni moom la baaw si def wax naa sànq ne day gunge. day informer pour ñi nga xam ne dañoo bëgg a tukki tukkin boo xam ne boo am solo la mhm. di sensibiliser sensibiliser ci jafe-jafe yi nga xam ne nii tukki bu jaarul yoon mën na ko mën na ko am ñi nga xam ne ñoom ay projet aussi euh, ñu war leen cee gunge état teg ay dispositifs yu bare baree baree bari ñoo xam ne accompagnement technique pour ku la bindal projet ak ñi nga xam dañ la war a financer ba si mën na ne kat bërëb sàngam boo fa demee bërëb sàngam boo fa demee lii nga xam ne mooy soxla dinañ ko dinañ ko mën a faj dans le cadre du projet gouvernance migration développement sànq bi may wax français wax naa ne euh, mënoon naa ko ci tudd peut-être question bi kiiwut au delà hmm, nga xam ne mission yi ñu def dañoo euh, euh, def benn fonds boo xam ne fonds bu am solo la ñu koy wax fonds régionaux un milliard boo xam ne ne dañ ko jël en tout cas ci ci ci projet bi le la direction général pour gunge ay migrants de retour si seen ay projet ak ay potentiel euh, euh, migrant euh, potentiel candidat à la migration nga xam ne lu tolloog neuf cent vingt cinq projet projets subventionné nañ ko nga xam ne subvention la woon amul amul amul fay mais dañ ko tegoon loo xam ne ni ay critères yu leer mu am transparence société civile bi nga xam ne dañuy jàppale aussi ñoom aussi accompagner nañ leen pour ñu mën a defal nit ñi ay formation ay orientation yooyu yëpp donc pour wax ne ba aussi taxawaay bi ñu am au niveau des régions nit ñi commencé nañ koo xam ba nga xam ne nii bu ñu amee soxla ña nga fay dem la preuve bi ñu demee dans les régions parce que gis nañ am na acteurs yu bari yoo xam ne dañoo nekk ci li ñuy wax euh, la gouvernance wala la gestion euh, des questions liées à la migration dañoo teg ay cadres région bu nekk ñu ne kat nañ fa teg benn cadre boo xam ne ñëpp ñi nga xam ne dañuy yëngatu ci gunge migrants yi euh, wala aspect yi nga xam ne aspect lié à la à la gouvernance à la gestion de la migration ñu ne nañ leen boole pour que ñu mën a am action yoo xam day gën a efficace mm-hmm. BAOS bi en tout cas ñu positionné ko boo xam ne nii en tout cas lépp lu ñu fay mën di def dina nekk au fait dina mën a gunge donc loolu pour wane ne nii Euh, ña fa jiitu bu dee nangu nañu loolu acteurs yëpp nangu nañu loolu c'est parce que xam nañ ne BAOS bi la muy mën a faj foofu ak la tax ñu def ko fa ma koy matale bu baax te gëm nañu ne fii ak ay at ah, dinañ dem ba nga xam ne nii BAOS yi comme niñ ko waxee en tout cas dina nekk benn représentation au niveau des régions bu ministère bu direction général de façon boo xam ne nii véritablement dinañ xam ne seen taxawaay am na solo. ci mbëkk mi xam nañu ni mu ngi jeexal ndaw ñi même bu fekkente ne ni jamono yi ñuy waxee euh, am na akuk dal. Euh, waaye wàllum ñaaxaate gi di sensibilisation dafa mel ni amatut njariñ ndax jeunes yi déglootuñu est-ce que loola mënuñ koo jéggi dem ci leneen sensibilisation bi euh, aller de delà xam nga day am solo day am solo saa su ne ñuy def lu ñu tuddee évaluation parce que bu ñu tegee dara euh, bu ñu demee benn diir objectif yi nga xam ne moom la ñu fixé woon xool ne est-ce que àgg nañu ci euh, Sénégal wax na sànq ne teg na stratégie yu bari ay politique yu bari ay structure ñu ngi fii ay institution ñu ngi fii nga xam ne dañuy dañuy dañuy gunge ci biir liggéey boobu gis nañ ci njariñ yu ama ama ama ama ama am solo hmm, parce que bu ñu defee évaluation xool ne kat euh, ñi nga xam ne nii euh, ñi ngi doon dem lii moo taxoon ñu doon dem mais est-ce que léegi bi ñu saytoo li tax ñuy dem est-ce que bokk ak li nga taxoon ñuy dem est-ce que li ñu tegoon am na njeexital ci taxoon ñuy dem ñu ne ah gis nañ ne de am na ci njeexital mais mën naa am demin bi nga xam ne nii moom moo nekk fi ñu toll nii mën naa am beneen beneen yeneen motivation la wala motivation yi dafa gën a xóot su boobaa aussi dañuy réajuster réajuster mooy li nga xam ne nii moom moo xew présentement à l' instant tey suñu nekk nii yan stratégie la ñu teg loo xam ne nii mu fekk si li nga xam ne moo fi jotoon a nekk pour que ñu mën a euh, wàññi en tout cas euh, góom bi wala ñu jeexal ko ba faw loola nag euh, pour mën ko def. état du Sénégal en tout cas structure yi fi nga xam ne ñoo fa nekk institution yi dañ ciy ànd ak euh, ay euh, partenaires yu bari organisation yu bari yoo xam ne ni ñu ngi fi ak yu nekk bitim réew ñu ci ànd di gunge donc ñuy def sensibilisation fu ñu toll mm-hmm. parce que sensibilisation du doy dem bi kat mu Sénégal mënut a tere kenn mu dem parce que kenn ku nekk am nga droit tukki mais kuy dem na nga dem ci demin boo xam ne demin bu normal la demin bu jaar yoon la lu ñuy Euh, émigration sûre régulière et ordonnée parce que boo ko deful aussi boo demee ci bitim réew parce que réew mu nekk am na autonomie boppam xool nu muy gérer réewam hmm. soo ko defee te respecté woo la nga xam ne ni aussi ñoom moom la ñu teg comme ay disposition aussi boo demee ñoom bu ñu jëlee décision di la wàññi aussi su boobaa état du Sénégal du taxaw ne benn réew doo wàññi diw hmm. c' vrai que bon danañ jox sa àq sa yelleef mais mënut a taxaw ne kenn du leen wàññi parce que ñëw fii aussi te doxaloo yoon aussi Sénégal da lay delloo ci dëkk bi hmm. daal sensibilisation bi ñu ngi Hmm? guddeeg bëccëg suba ngoon euh, parce que sensibilisation mooy lan nga bëgg a def mm-hmm. dem bi boo bëggee dem mën koo teg ci yoon Sénégal kat am na luñ ci teg loo xam ne nii mën na leen gunge lii ak lii ak lii la orienté leen yombal leen ko effectivement hmm, gis nañu ne li ñu teg am na njeexital hmm, bien vrai que de l'autre côté bu ñu xoolee dem bi ni nga xam ne moom la takarnaase woon en tout cas weer yu mujj yi am na ñoo xam ne mën nañu xalaat ne li ñu tegoon est-ce que jariñ na dara mais ñun ñi nga xam ne ñu ngi ci biir yàlla dogal en tout cas ñu ciy liggéey di mën a xam les données évolution bi di di fekk ñu évaluer di évaluer gis nañ ne am na am na njeexital mais du doy à chaque fois dañoo war di gën di renforcé di gën a adapté wu ak euh, contexte bi nga xam ne ci la ñu nekk ba tax na daal jàpp nañ ne fi ñu toll nii cadre yi nga xam ne ni teg nañ ko nga xam ne ñëpp dañuy waxtaanoo ensemble dinañ mën a trouver ay solution par rapport à cette problématique là nga xam ne problématique bu bu doy waar la voilà xale yi ñu leen continuer leen conscientiser merci beaucoup jërëjëf euh, soxna euh, madame Ndiaye <laughs> soxna awa mi madame Ndiaye jërëjëf mais day am solo aussi boo ko boo ma ko permettre ma dellusiwaat un peu si parce que wax naa ne euh, journée internationale des migrants ministère bi daf ci am taxawaay bu am solo te at Euh, direction générale d'appui Sénégal lecture yi nga xam ne mooy bras technique bi parce que moom rek moo nekk la direction une unique direction générale bu ministère nga xam ne ni ambassadeur Amadou François Gaye moom moo ko moom moo ko jiite ak ses équipes ah véritablement di ci liggéey liggéey am solo à côté euh, voilà euh, en rapport laay wax sax le ministère en charge des Sénégal de l'extérieur madame docteur Annette Seck nga xam ne moom en tout cas ren voilà dafa gën a taxaw Euh, euh, ànd ak le l' ambassadeur le directeur général pour que ak suñu partenaire OIM ak yeneen partenaires yi ñu mën a taxaw ren euh, taxawaay boo xam ne nii dina méngoog ak dayo bis bi mhm. loolu mu nekk lu am solo ñuy convier en tout cas les acteurs nationaux et internationaux ci euh, liggéey boo xam ne nii ren en tout cas ci journée bi dina am ay panel hmm, ay panel yoo xam ne ni panel yu am solo yoo xam ne moom la ñuy def xool ja dem bi lan moo koy waral hmm, euh, ginnaaw xam nañ ko ah, parce que day am solo aussi ñu déglu euh, askan bi aussi gën leen di déglu ci benn place boo xam ne place bu bu officiel la bu solennel la hmm, parce que bis bi aussi nekkul bis boo xam ne dañuy xumbaay tëgg xumbaay mais bis la boo xam ne dañuy saytu xool teg ay panel yu yu mel noonu ak des uns et parce que dem bi aussi nekkul état rek moo am responsabilité am na ñeneen ñoo xam ne responsabilité dafa partagé bien vrai que état am na ci wàll mais euh, famille yéen ñëpp dañ ci am wàll ñuy dem aussi seen xalaat dañ ci am wàll parce que ñoom léeg-léeg dem te seen famille sax duñ ko yëg ak aussi dispositif yi ñu teg parce que bu ñu xoolee dem yi lan moo ko waral ñan ñoo ci am responsabilité dañu ñëw nag ne leen attention voilà ce que l'état a mm-hmm. nit ki daanu dajul suuf c'est vrai ah mais li gën am solo mooy nit ki bul yàkkamti xam nga nos jeunes d'aujourd'hui ñu ci bëri dañoo xaw a yàkkamti Euh, bu fekkee ne mën nañ ma ko permettre mais état teg na fi loo xam ne nii kuy cukkastiku ndànk ndànk ndànk ndànk yàlla mun na def euh, da nga dem ba sa xel du ma sa xalaat dem parce que koo gis tey moos la la waxee ton parcours da nga naan non non loolu lépp lu koy waral mooy euh, en tout cas patience am na solo monsieur Diop fàttali ni sa xel dafa màcc ci wàllu migration ak développement laaj ak tontu la woon suñu digganteeg yow ñu yendoog jàmm yow ñu yendoog jàmm yow ñu yendoog jàmm